asalaamaaleykum mbokk melokaan TV ñu ngi leen di baax a baax di leen ni ñu koy defee chaque jour moo ñu soxal te loolu rek moo ñu ñor ci loolu la ñuy xëy di ci dox soo bëggoon jël alors kii ñu toogal ni kenn dootu ko présenté àdduna parce que nag ñëpp ko xam partout dans le monde nekk doom ci suñu papa Doudou Ndiaye Coumba Rose nekk koo xamante ne ni tambour masoor bu mag a mag la yor mu jël la nga xam ne papa moo ko doon yor mu yor ko mu nekkoon mu nekk nit boo xam ne tamit moom mooy tëgg tout le temps li nga xamante ni moom moo di 4 avril eh, ren nag gisuñu 4 avril gisuñu ko ca dañuy laaj naka la dundee loolu kenn dootu ko présenté àdduna ma baamtaal ko muy Birame Ndiaye Rose ah borom tambour major bu mag bi fii ci Sénégal partout dans le monde ñëpp a ko xam mu nuyoo ak mbokku Melokaan TV ñu dugg ci waxtaan Birame ñoo ngi lay nuyu di la ziar. waaw Mina maa ngi lay fay di la ziar bu baax eh, di nuyu Sénégal mais di di nuyu bu baax eh, sénégalais yi di nuy bu baax ki nga xam ni moom la yàlla tapp ci. bopp réew muy le président Bassirou Diomaye Fay di ko wax ne ko yéen wi yàlla na oyof fi muy yéene Sénégal yëpp yàlla na fa sunu borom yeggale di nuyu nak son excellence le président Macky Sall mi nga xamni mo fi nekkoon te lépp rafet nga xamni ni eh, dem na par la grande porte nit ñi ngi koy jooy ba léegi mais yalla li la dogal ñukoy remercier momit bu baax a baax di nuyu suma yaay ajatu kinelam di nuyu suma famille suma soxna ak eh, famille du ndjay Coumba Rose yëpp ngi leen nuyu. famille bu jara nuyu muy famille du Ndiaye Coumba Rose alors Birame ku xam Birame xam ni moom moo yor tambour yi nga xam ne moom lañ doon dugg ci 4 avril bi alors dañuy njëkk ci ci li nga wax sànq muy président de la république Macky Sall nekkam nga daan tëgg ci ay ci kanamam 4 avril bi moment boobu noonu noo ko daan dundee ci Macky Sall. waa loolu yàgg naa ko dundee dund bu am solo parce que dama ci njëkk a ànd ak ki nga xam ne moom mooy suma waajur du Ndiaye Rose parce que yaakaar naa 1960 la woon. lañ jël sunu fête indépendance euh, sama papa tëggal na Senghor tëggal na Abdou Diouf tëggal na Ablaye Wade tëggal na ki nga xam ni moom mooy Macky Sall tey mu génn àdduna man ma waroon toog tëggal Macky Sall ba mu dem nii waroon tey commencé ci Bassirou Diomaye fay sunu président yàlla def élection yi taxoon ba 4 avril amul mais Nous ñëpp démb dañoo parce que euh, diggante première ba deux trois day fekk ñu répétition miin xale yi préparer 4 avril bi ba nga xam bu jotee rek ñu un parce que taxaw grand devant le chef de l'État di fecc di yombul mais comme nampoon nañ ko ci donc bu ñu ñëwee c'est force dañ koy tari ñun ak Kennedy ginnaaw bi fi sama jur góor génnee nga tëggal Macky Sall ñaata kadaaf bi nga tëggal Macky Sall. waaw suma ma juumalee dina sama papa mi ngi gaañu 2015 le 19 août 2015 2016 euh, suma taaw papa moom moo ñëw muy Cuuna Njaay dafa génn àdduna yàlla ko yàlla yërëm tax rek àjjuna taxaw taxawaay bu rafet moom tamit man li paa bi def ak li may def euh, mille 2017 man laa tàmbali ba tey mille 2024 nii. mille 2017 laa tàmbalee jiite taxaw taxawaayu paa bi amoon yéene nag ak euh, président tey toog ñu def ko waa yàlla def lii mu am donc ñuy waajal rek incha allah déwén xam ni at yàggul président Diomaye fay toog ñun waa kër du Ndiaye Rose ñu taxaw wan ni ko nii sunu baay taxawee woon ci chef de l'état yi fi jaar yëpp man biram Ndiaye Rose noonu lay taxawee ak famille du Ndiaye Rose yëpp nga tok ñu won la taxawayu du njaay ros mais won la taxawayu lycée crédit nga daal di euh, tëggal Macky Sall maanaam première année bi nga xamantene ni nak biram mom mo jakarlo ak président de la république sans papaam lu dul ay rakam ño nek ci mu wara jël relève bi jakarlo ak président premier jour bi nga engagé nan la la def joy parce que bo xolé tenue bi ma sol ni mom mhm. moy tenue originalu du njaay rose ah, bi la parce que bi yoruma ko woon taw bi mu génne àdduna la ma ay doom woo ne ma sama papa de comme génn àdduna te tëni baa ngi fii man leen man tëni bi de bëgg naa ko jël ñu ne ma kon dinañ la wax yónnee nit mu yónnee la ko ci laa woote ñu yónnee ma ko moom laa sol nii moo xoolee sax loxo yi gis nga ni mu xawee xat parce que paa bi moo ma euh, max gënoon ëpp fii tuuti moo tax poids ñëw bi gis nga pour mu tëju kon mën naa ne tey tenue original du Ndiaye Coumba Rose bi noonu moom moo nekk nii. Euh, mën naa ne diggante mille 2017 ak léegi ñaata at la mm-hmm. ah waaw def naa yooyu lay mat mm-hmm. donc ci ci laa ko sol boobu ba léegi mm-hmm. mais premier jour bi ma solo Kennedy ba taxaw génn xool xale yi xool waa ma majeur dama doon jooy. waaw jooy mooy euh, paa bi laa jooy benn ñaareel bi. tënn bi dafa diis ci man parce que dama lu ma doon yëg sama yaram fa tàngoon après docteur kii lycée Kennedy maa ngi koy nuyoo passage ku baax suma xarit mu nga ne biram bul def ni parce que boo jooyee rek di nga perturbé xale yi perturbé be perturbé majorité te tey yow da nga yow yaa war a dëgër. waaw da nga waroon engagé. waaw engagé wu ñëw taxaw. premier jour bi. Mhm. mais ay jooy laa fa nekkee woon. mënuma ma sama bopp parce que boobu am na lu may yëg. Mhm. parce sol naa loo xam ni tey Euh, li ma yëg sama yaram ma xam ba pare ma génn xale yi commencé di jooy di ma jooyloo. majorette yi ak tamit tëggat yi mooy surtout du Ndiaye Rose yi mm-hmm. dañuy génn di ma xool di jooy di jooy man leen bu leen jooy mm-hmm. yéen yéen may jooyloo sax après na ci laa xool nag ni man mënutuma tee sama bopp mm-hmm. professeur woo ma dugal ma ci bureau ni ma biram mun ma bul def lii tey ñëpp ñuy ci setaan yow yaa war a dëgër tey xam naa ni li nga yenu diis na mais am nañ ci yow yaakaar na yàgg na la suivre bi paa bi voyage nga taxaw wara mu feebar nga taxaw kon yow li tey jaaxaluñu ci la dëgër ñu tal suñu loxo def ay ñaan ñu dem vraiment ma réussir ko bima ma proviseur dafa ma cote di joy ne ma ñun gis ñu biram njaay image du njaay rosa ñun gis kon lool de ah, ah, ah, euh, tellement li nga li nga jangon tari nga non li ma jàngoon tari nak parce que pa bi dama ko yag suivre man bo xolé machallah bari na ay dom mais ñepp ñom man li mais man ma ci gëna man li parce que li waral moy dama don xol pa bi man te bu paa bi daan tëgg boo njëkkee bokk si ñi tëgg euh, li ngay am ak kii commencé wul du bokk gars yi dina xëccoo tëgg pour mën a am lu ëpp xaalis man dama naan ñëw sukk teel ko sabar gi di ko xool geste yi mu def ma def ko loolu moo may bi mu àdduna mu a taxaw di def li muy def ba pare yàlla dimbali ma ma am ci taay bi mu amoon tollook moom ci njabootam. ban moment bu fort nga dund ak moom ci moment wu 4 avril. bari na buñ né suba rek doomi leen wo ne li yi ñoo leen wuy si ma nu ñëw mu xam leen ni nak suba ay autorité tok rawati na la chef de l'état yar lafu fa bëgg teggin yeen ñëpp ngeen am benn comportement wotu ba rafet sama bab li ngoy kui gis nak du and ak kuy def ay rasa du and ak kuy bënnu du and ak ko xamni da fay mel benen melokaan bo xamni euh buñ leen tuddé mom dañ koy tudd waaw ko won moom lim bëggoon ngay wotu ba set waaw wattu ba naagis di peñe wu nekk nit ko correct moom noonu la mel parce que moom dafa yiwoon mhm. moo tax moo tax sama papa boo amee benn comportement bi du ànd ak moom ñun nag mel ñu woon noonu si li ñu yaroon mooy diine julli watu am yar am teggin xam ni nag bu ñu xasee ba taxaw devant le chef de l'État mhm. dañu war a wane yar ak teggin parce que duñ ñu tudd moom image am la ñuy tudd mhm. ndax loolu ñun dañ ko doon sóor ñu préparé wu jël tenue yi dem Kennedy accordé sabar yi daj defarat mom mu ñew wo xalé yi neen nak suba bëgguma kenn kuy fecc di di mer mhm. war ngay ki de len yëngatu di ree di ki di kaf ak ñom ah neen nak bu ngeen jëlee suba pee na len may ñaari xar ngeen daal di mu def seen mbaxal kenn di xalé yu xoo mhm. ñu tegal len baara mbay mu ne bala ngeen fecc sax man maay jëk fecc ñu bëggal xalé dafa bëggoon xalé daal mhm. naka communication bi sa papa amoon ak wa Kennedy biram am ko ak wa Kennedy amna ko bu baax na sa papa mom dafa neexoon euh moy ma gëna neex man ma ñëwee nii dama dajji xale yi nag man ni paa bi daan def laa copier ma des fois dama naa ne géewul leen ma booy tëggal ma ma ma baaram bay ci biir def lu ma neex xale yi tamit ma bëgg leen a des fois ñoom ñu ngi siy dàq wala ñoo xam ni dañuy def erreur ñu pini leen mais su ma ñëwee ñaan ki nga xam ne moo doon si responsable madame ju dafa génn àdduna yàlla na ko yàlla yërëm. su ma ko ne madame Diédhiou xale bi mënuma biram kii bàyyi ma yar man ko déet waay man ko madame Diédhiou soo ko bàyyiwul naa la feccal feccu séeréer tey nga baal ko de fa laay nekk di baaram bay di ay ceebu jën ba mujj ma baal naa ko kon loolu am naa ko ak kiné yi am ko nag ak euh, professeur bi fa nekk li ngay gis ni école ba at mu jot nit ñi dañuy ñëw ci man pour bëgg ma yóbbu fa seen doom ñu jàngi mais bu ma ñëwee professeur bi ku ma fa indi daf koy jël a cause que kan du Ndiaye parce que dama ñëw mu ne ma du Ndiaye Rose ko fekk ak école bi kon njabootam lii war mooy jox leen ku kuñ fi indi ma jël ko lu ma yóbbu Kennedy ñu jël ko à cause de Doudou Ndiaye Rose. tax ngeen fixé ci Kennedy waaw parce que luñ fi fekk la quoi héritage Doudou Ndiaye Rose la kenn mënu ko fii dindi. waaw parce que je crois que Germaine Acogny moom moo créé danse majorette Doudou Ndiaye Rose moo ko tëgg. donc benn majorette moo amoon muy lycée Kennedy ci défilé après lañ ci dugal sax notre dame. mais Notre-Dame euh, yéex na ñëw Masoret Kennedy la. boobu non doon Notre-Dame suma liggéey ak ñoom am nañu seen i batteur mm-hmm. mais ñun 4 avril mm-hmm. ñun ñooy tëggal lycée Kennedy mm-hmm. Euh, dinañu tëggal ay Masoret ci yeneen école yi nga xam ne dañuy def seen semaine culturelle woo ma ma leen ay Masoret parce que dama koy monté damay joxe ay fecc ba ci Masoret yi am nañu ko leen di feccal mais des fois fi may tëggee dinaa sentir lii war nañ ko mën a dugal ma ñëw demander ko ki nga xam ne mooy Mor Xarma nekkoon pirate de jëppal moom mooy feccal léegi majorette yi su ma ko ne moor fii de am naa lu ma fi yéeg mënu ma waxal ni nga ko bëggee ma dugal ko foofu kon man dañuy tëgg mais dañuy joxaale en même temps suñuy pas de de danse quoi te ñu koy nangul. répétition ñaata temps lay doon. répétition yi nag bu njëkk ba daan nañu répété quatre mois après ñu dem ba si biir moyens yi xam nga du ko laaj mhm. ñu wàññi trois mois mhm. léegi dem nañ ba léegi deux mois la. ak ni ngeen ni ni ñuy tolloowee danse bi ni muy mel tëgg bi ndax dina ci mokk carrément li nga soxla dëgg-dëgg euh, daan nga ko am comme ni ko paa bi daan amee. si si si parce que ñoom boo xoolee bu dee deux mois la ñoom dinañ répété un mois ba yëpp taxaw ñu door a woo ñu ñëw mhm. bu ñu ñëwee ne ñun dañuy toog du ñu tëgg mhm. dañuy leen di xool ñu fecc lépp ba taxaw man ko léegi kon dañ koy def étape par étape léegi fi nga démarré danga ma koy feccal ba fii ma dugal fa rythme ñu taxaw bu leen dépassé loolu waaw ñu daal di commencé def marché bi génn kii kenn dañ caj caj caj ba ñëwee def benn pas ma ne kon fii nañ fi dugal lii après def break bi taxaw ñu répété ko loolu ñu taxaw man leen léegi nañ delluwaat ñu delluwaat ñu fecc ko ci rythme ma joxe ba ñëw ba foofu ñu delluwaat ma ne ko léegi lii li ci topp feccaat ko ma xool mu continuer li ci fecc ma xool foofu rythme bi dugal ko noonu laa koy toppee ba li ñu fecc yëpp ba mu am rythme nag ma ne ko léegi nañ def filage mooy nan dem ngeen ci yéen normal rek mhm. man ma xool rythme yi ma créé woon bu ci jot bu ci waree dugg rek ma dinaa ko dugal ak ñi ma àndal. ba ngay ba ngay jógee ci saal bi war a ànd ak majorette yi war a jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñooy chef de l'état bi pression bi naka lay demee ak élèves yi nga xam ne tey yaa leen yor ñu mën a jàkkaarloo ak le peuple du Sénégal jàkkaarloo ak état pour mën leen bégal pression bi biram ñun nag du ñu am pression waaw du ñu am pression parce que yàgg nañ ko def ak sunu papa mhm. euh, xam nañ ni Sénégal moo ñuy xaar. xam nañ ni nation bi ñun ñuy xaar xam nañ ni tamit jour boobu kuy géwal rek damay jàpp ni Birame Ndiaye Rose mooy son excellence de tous les griots nag jour boobu tëggkat yëpp dañuy toog di déglu Birame Ndiaye Rose ak les e de lycée Kennedy euh, dama am benn pression njëkk ba dañ daan depar ca centenaire ba di dox di ñëw am na benn départ boo xam ne ñu ngi commencé grande mosquée. moment boobu yëpp da ngeen di tëgg fecc. tëgg di fecc di ambiance parce que du ñu ko yëg day neex. nit ñi lay tàccoog nit ñi yooyu da sa xol doo ko yëg. ñu dem ba si bi ñu ne légui temps bi mayatul ko dañuy wañi ñuy wañ ñu dem ba si bi ñu ne bundu ambassade Mauritanie la déparé mo di ñuy genn ambassade Mauritanie rek tribunal euh président daal di nak di fekk di fekk bu ñu ñëwee ba ba jégé ko ñu wetu majorité nek ci digg bi man ma taxaw di bouger des fois ma dem wax ak majorité ne len ni ré len mais yëngatu len def leen ay gestes yooyu xarqataay ñëw def sama ki ñu tàcc ma buñ bay dem nak damay joxoñ nak la chef de l'état nak xamal ko waa kër waaw xamal ko ne waa Doudou njaboot Doudou Ndiaye Rose yëpp ñoo ngi lay bàyyi xel di la tàllal loxo bu baax a baax di la sant di la gërëm daay tëgg benn rythme pour moom door avance na topp xale yi dem ba lycée di ñi nga xam ne gisuñu woon danse bi ñu fekk ñu di ñu feccal leen tëgg ko ñu xool après ñu door a kenn ku si nekk di yeewee ko pour ñibbi